mbokk yi nuy seetaan dellusiwaat nanu di leen nuyu di leen ziyaara fas yéene ànd ak yéen ci ñeenteelu pàcc bi muy quatrième épisode jëm ci thèse bi professeur Rawane Mbaye bindoon te li mu ci dëngaloon ci li jëm ci Serigne Touba maak Sidna Omar Ba nu bind téere bi ngir jubbanti ko xam ngeen ni ci ñetteelu pàcc bi bi may tàggoo ak yéen maa ngi woon ci loolu mu wax ni sëriñ bi bi mu ñëwee njaareem ci 1912 bindub leetar yónnee ko gouverneur wala jaarale ko ci commandant de cercle bopp Diourbel te ñu won référence am mooy dossier d'Ahmadou Bamba Archives du Sénégal Bien que koy dit le la bind lettre bi nga le 11 octobre 1912 le ñu ko bind te moom rawaan monsieur wax demok Serigne Bakke Bousso maanaam yónni ku ko sëriñ bi yónni leetar boobu day nekkul ci archive yi muy archive Sénégal yooyu muy wax ndax mbind yi nga xamante ni mi ngi koy indi ci biir thèse bi te mu am ci lu ko wóor am document bi am référence yi dafa koy da koy indi soo demee ca njeexteel thèse ba document yooyu yëpp da ko yow indi ca annexe ba lettre boobu mu wax nag nga xamante ni bii nekkul ci archive yi teesu Rawaan Mbay bi boo koy liir dangay gis ni dafa am nu muy jëfandikoo te loolu mooy ay delluwaay yu leer saa bu bindee loo xamante ni am na ab delluwaay muy ab source day indi source ba delluwaay ba mu leer lool waaye bu fekkente ni li muy wax le document bi muy wax day bind archive du Sénégal dossier Bamba loolu mooy su fekkente ni wax wóoru ko amu ci référence maanaam amu ci benn delluwaay bu mën a indi yi mu am ay delluwaay yu wóor di koy indi waaye li muy bind lu mel ni leetar bii muy wax su fekkoon am na ko kon dina indi leetar bi walla mu indi référence bi waaye dossier Ahmadou Bamba archive du Sénégal lu mu wax lu ko wóorul lu nekk loolu lay def ab deluay ndax ci xet wo nga xamanteni moy correction bi nu jall muy correction numéro 5 xetu ñenti téméré fukk ak juroom ñaar 417 loolu ma wax ni bu amul référence rek archive du Sénégal dossier Ahmadou Bamba lay indi ca xët woowee itam daf cee bind ni wala dañ cee war a leeral ni dafa wax ni tey ci Yacine Fall jëf yooyu sëriñ bi doon jëf ndax moom teeñ la moo dëlanteeg tubaab yi ci atum junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett waxoon naa leen ko te ñu ni ko woon yaay doon teeñ damel teeñ dootul am te mu tudd ko ci correction boobu ñu jàll muy juróomeelu correction bi moom teen ci Yacine Fall moomu ci atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk lañu ko folli fal teeñ Tanor Dieng te jamono jooju ñu di ko folli 1890 sëriñ bi dara doxagul woon ci digganteem ak tubaab bi lu may ay kalaame ndax ci 1889 la gouverneur Clément ñëw Touba ni ko tasaareel mbooloo mi sëñ bi gàntal mu dellu kon 1890 fekk na ña ngay bind ay rapport waaye jógaguñu jëm ci sëriñ bi kon foofi mu indi teeñ ca Yacine Fall te mooy teeñ ca Galo dana nu jaaxal lool ndax mën nañoo wax ni diggante sëriñ bi ak tubaab yi bu dee ca Bawol mi ngi tàmbalee ci teeñ tanoor kon teeñ ci yaasin joor galo gànn mi mu ci indi xamuñu lu tax mu indi ko ndax moom 1890 lañ ko wàcce te mën nañoo wax ni diggante sëriñ bi ak tubaab yi bi muy door booba teeñ tanoor moo doon teeñu bawol ndax Teñci Yacine Dior Gallo Ganna 1890 lañ ko wàccee fal Teñ Tanor te diggante sëñ bi ak tubaab yi soo demee ci seeni mbir mi ngi door ci atum 1891 mën nañoo jàpp ni lël boobu daal diggante sëriñ bi ak tubaab bi ci la doore mu nekk Tuuba ñeenti at ginnaaw ba ci 1895 la doog a bàyyi ko Tuuba dem Mbàkke Bari ci Jolof kon 1891 ci la administration coloniale bi tàmbali jóg ci mbiri sëriñ bi ndax soo demee ci li ñu njëkk bind ci moom ci at moomu nga xamante ni ci la Cheikh Mahamadul Amin Baara feeñ lañuy ñuy njëkk a bind ci sëriñ bi mooy sëriñ bi sañc na ab dëkk ci àllub mbaafar soo demee ci téere Omar Ba bi ma nga cay wax ni sëriñ bi am na lu bari xew-xew bopp murid yi xamuñu ko te mooy sëriñ bi dëkkoon na mbaafar te mbaafar mooy àll bi nga xamante ni moo nekk diggante mbakke bawal ak Jolof soo bàyyi ko Mbàkke jëm Jolof àll boobu moo doon àllu mbaafar foofu nag fële Sëriñ Tuubaa ñëw sanc fa ab dëkk waaye moom tuddewu ko mbaafar Tuubaa la ko euh, tudde kon ci 1891 la mbir yi tàmbali te booba teñ ci Yacine Dior Gallo Gane doonatul woon teeñu bawal teñ Tanor moo doon teeñ teñ Tanor moo nunguloon gouverneur Clément ngir gundu xataal murid yi indi woon naa ko ca bayitu Serigne Moussa Kawa li tubaab di wax base de base besogne te muy jëf yu ñaaw yi tubaab yi bëggoon moom teeñ tanoor moo ko doon jëf waaye ci Yaasin Joor Galo Gànna moom ba yooyee xew fekk na ñu folli ko kon loolu mooy jubbanti bi ñu indi ci correction numéro cinq ñu ñëw ci juróom-benneelu jubbanti bi muy correction numéro 6 soo demee ci teesu professeur Rawane Mbaye bi ci xëtu ñeenti téeméer bu ak fukk ak juróom-ñett lii la fa bind dafa wax ni loolee mu waxoon ca correction wala la mu waxoon ca page 417 ba soo demee ci page 418 bii dafa wax ni loolee ma wax ci taalibe yi sëriñ bi dafay mel ni mooy dëggal ni sëriñ bi mi ngi dajaley taalibeem te muy lu ko yomb ndax nee na bu fett soo rek ñoom ñépp ñu daje nee na kon loolu li ma wax mel na ni sëriñ bi mu ngi dajale ay taalibeem te bu leen bëggee dajale daf koy yomb lool mu ni nag juróom-ñetti at ginnaaw bi sëñ bi sañcee Touba dafa jóge ñëw sañc si Jolof ci weeru mars atum junni ak juróom ñetti téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom mars 1895 nee na loolee la ko waraloon li tax mu ñëw sanc Mbacké Bari déggal gu ko ñooña déggaloon tey jëfandikoo am njàngaleem nee loolu benn la ci li tax mu sanc Mbacké Bari waaye nee na ñaareel ba mooy Mbacké Bari li wolof di wax selebe yoon la muy ab karafuur loolu bi sëriñ bi sañcee Touba boo demee ci mbindu gouverneur Clément Thomas ma nga cay wax ni fii mu tànn sañc fi mooy foofu ñuy wax mbaafar di Touba ab sële bi yoon la ndax mën nga fay jóge dem Gàmbi mën nga fay jóge dem Jolof mën nga fay jóge loolu yëpp ci tuumaal sëñ bi nee nañu foofu mu tànn muy Touba saa boo jógee bëgg koo song day yomb ci moom lool mu am fu mu jaar ba génn loolee Clément doon wax ci Touba nag rawaan mbay moom Mbàkke Jolof gii la ko euh, Mbàkke Bari gii la ko indi nee na la tax mu toxoo Touba ñëw sanc fa waa Mbàkke Bari dañoo déggaloon sëriñ bi te it Mbàkke Bari day selebe yoon nee na mu sanc ko tudde ko Mbàkke Jolof nee ci weeru sulet ci at moomu muy mille huit cent quatre-vingt-quinze ci weeru juillet wa buur Jolof Sàmba Lawbe Penda ak doomi baayam Alburi Njaay ñëw nañu ci sëriñ bi ak ay yeneeni kilifa ñëw nañ ci Cheikh Ahmadou Bamba nee sëriñ bi itam sanc gi mu sanc Mbacke Bari te bu bëggee dajale mbooloom mu yomb ko lool nee na ñaari meen a ngi nii muy meenum jóob ak meenum loo mu ngi ci jubluwaa waa ndaam ak waa kokki ñooñu nga xamante ni nee na amoon nañu doole lool rawatina sëriñ kokki ngir meenum ñi sant Jóob ak Sëriñ Louga di meenum ñi sant Loo ñoom ñu déggal sëriñ bi lañu ndaam ak kokki daal muy njàmbur déggal nañu sëriñ bi loolu tax na li tax mu ñëw sañc Mbacke Bari loolu moom la bind ci xëtu ñeenti téeméer ba ak fukk juróom-ñett lañ ko tontu lii la moom nee na sëriñ bi sanc na ci jolof tudde ko Mbàkke jolof ñu ni ko loolu wérut li wér mooy Mbàkke jolof maam maaram moo ko sanc te maam maaram mooy maami sëñ Mor Anta Sali mi waajuru sëriñ bi kon mooy maamaati sëriñ bi kon sëriñ Touba sañcul Mbakke Jolof ndax maam maaram mi Mbakke Jolof la bàyyi ko woon sañcal doomam Ahmadou Soxna Bousso mi waajuru Soxna Asta Waalo barab boobu di Mbakke Baari loolu mu wax ni waa Mbàkke Bari dañoo nungu loon sëriñ bi tam sëriñ bi Mbàkke Bari ba mu fay sanc fekku fa ab dëkk Mbàkke Bari dafa gentoon kon bu waxee ni waa Mbàkke Bari dañoo nungu sëriñ bi Mbàkke Bari da doon sele bi yoon loolu wérut ndax Mbàkke Bari Ahmadou Khary Diop Mbàkke di doomi bàyyu Ahmadou Soxna Bousso bi sëñ Ahmadou bu Ahmadou Soxna bu sa saayee moom lañ fa yóbbuwoon kon bi ko sëriñ bi di sanc fekk fa mu doon dëkk ba waa dëkk ba dañ koo nungul kon mbakke Jolof moo doon dëkku maam maaram foofe fa la nekk ba bi mu wujjee boromam foofe la ñu ko denc barabam ma nga mbakki jolof kon loolu rawaan wax ci mbakke bari loolu wérut sëriñ bi mi ngi sañ ci mbakke bari ginnaaw bu mu jógee tuuba ñoo yi ma ko waxee ñëwul fekk ab dëkk ndax ab dëkk mënoo faa dem fekk fa aw nit ba noppi naa maa ko sanc moo koy da fay tuxu si kon fekk mu doon ab dëkk waaye loolu yi ma leen wax ni leen maam maaram moo ko sanc loon sëñ Ahmadou Soxna Bousso Mbacké mu nekkoon fa ak rakam sëñ Sayer Soxna Bousso bi sëñ Ahmadu Soxna Bousso wàccee ab liggéey sëñ Sayer Soxna Bousso moom dafa dem Mbakke Jolof ci waajuram ci Amadou Xari Jóob moo fa nekkoon kon Mbakke Bari ba sëñ Ahmadu Soxna Bousso jógee sëñ Ahmadu Xari Jóob wóotu ko fa sëriñ bi moo fa dem sancaat ko tuddi ko Mbàkke Bari waaye du mbaki Jolof ci ni ko euh, rawan binde beneen problème bi nga xamante ni bii itam moo gën a tee doy waar ci limu bind mooy mbirum Samba Lawbe euh, Penda buur ba Jolof ndax nee na bi sëñ bi sañcee mille huit ca weeru sulet wa ci la sàmbalaw bi pende buur ba jolof ak doomi baayam Alburi ñëw fekk ci sëriñ bi foofu itam liñ fiy leeral mooy ñaari nit ñoo ñu mu wax muy sàmbalaw bi penda ak Alburi mënuñoo ànd fekk ci sëriñ bi Mbàkke Bari ndax ñaar ñi mu wax Samba Laobé moo wuutu ba Jolof Alburi te Alburi mi ngi gàddaay ci weeru mai atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk bi sëñ Touba sañcee Touba ba ca déwén si rek astafurlah ba am ñaari at rek ci Alburi gàddaay tubaab yi fal euh, Sàmba Lawbe kon ñaar ñooñu mu wax di ay doomi baay te ay doomi baay lañu ndax seeni baay ay doomi baay maanaam ñoo bokk menn maam laa bëgg a wax ci gàttal Alburi ak Sàmba Lawbe ñoo bokk menn maam Sàmba Lawbe Penda jébbalu ci Sëriñ Tuubaa waaye du ci weeru juillet wa weeru juillet wa fekk na mu ci weeru mai 1895 soo demee ci rapport biñ ko doon attee yóbbu ko Gabon te la tax yóbbu ko Gabon mooy jébbalu gi mu jébbalu ci Serigne Touba ñoom tubaab bi nee ci weeru mai 1895 ci la sambalaw bi pend buur Jolof ci Touba lañ ko ba soo demee ci procès verbalu atte biñ ko atte ci ñaari fan ci weeru janvier atum 1896 loolee moom nga cey fekk Alburi mim ci yokk nag ni jébbalu na ci sëriñ bi en 1895 nee naa leen 1890 la dem Dosso ca Niger maanaam moom gàddaay na juróomi at lu jiitu sëriñ bi di ñëw Mbàkke Bari kon moom professeur Rawane mbay waroon nañu indil delluwaayam walla cëslaayam ci njëbbalug Alburi Njaay bi nga xamante ni bi sëñ bi ñëw Mbacke yi fekk na mu génn Sénégal ba am juróomi at moom mu ni jébbalu na ci sëriñ bi loolu mu wax ci meenum ñi sant Jóob muy waa Kokki ak ñi sant Loo di waa Louga te mooy sëriñ Kokki ak sëriñ Louga moom rapport bi nga xamante ni bii l'administrateur de Saint-Louis di Leclerc bi mu yóbboo bi Ndar rapport bi mu def ci fukki fan ak juróom ci août 1895 lii mu wax indi na ko ci rapport Bobé te ñaar ñi mu ñom musu musuñoo dem Mbàkke Bari maanaam li ma bëgg a wax mooy ki nga xamante ni nañ yóbbu Serigne Touba Gabon ci moom la njëkk a génne moo ko njëkk a bind muy administrateur Ndar commandant Ndar di Leclerc rapport bi muy cité nga xamante ni ci weeru juillet 1895 la ko bind moo ci proposé ni sëñ bi nañ ko yóbbu Ndar waaye looyeen yi muy sëñ Louga sëriñ Kokki loole mu gis ci rapport ba rek moom la indi fii te rapport ba noonu sëñ Tuubaa bi ko jël si moo ko bind ñi nga xamante ni bii mooy sëriñ Kokki ak sëriñ Louga fekki woon sëriñ bi Mbàkke Bari bay jébbalu ci moom kon loolu mooy jubbanti correction numéro six jubbanti maanaam juróom-benneelu jubbanti bi ca la mu bind ca xëtu mu mel ni li ñu cërale ci waxtu mat na kon dañu leen di sant di leen gërëm di leen jox wala di leen dig daje ci ñeent juróomeelu pàcc bi muy cinquième épisode kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ni topp leen nu rek ndax fas nañu yéene indi lépp li nga xamante ni leeral nañ ko ci teesu professeur Rawane Mbaye bii mu def tuddee ko l'islam au Sénégal la mu ci wax ci Serigne Touba te wérut moom la ñuy leeral maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf.